je voudrais dire tout juste félicitations à Khalifa grand c'est un bosseur, il est loyal. Hein. C'est quelqu'un qui a un grand cœur aussi. Donc, il y a un deux. Khirsan. ñu dem ci tu tigre tu de. gis nañ mandi kat bu wàññi mi bàyyi mandi ak raat noonu ma bëggee xaalis sama rakk bu leer bu lewul tamit na ma dal yore bu duggee ajana ajanay tàbbi safara si géej mu munul mandi fa nga laa mu tax ma ne wàcc naa bëri wàcco biiw wàcc naa bëri wàcco biiw wàcc naa bëri wàcco biiw nigga ni wàcc naa bëri wàcco biiw mu nooñu ma dee bëgg ragal a mag ku ñàkk sa rakkal a mag ku leew ma raba ma yàgg jóg a tàkk jàpp nga baax ñu jàkk te nga ma gën a yëg ñëpp day ma koy fëgg seen dëkk te nga ma gën a gën jëf waaye bu gëmeen tunaan da ngay ci asi te gën koobu togg ak buuju xarit tur man ni wër sa si mooy bu tax nga tur naa pare naa sama fees mais classe ma doon gas joo tëb dama bal ñu des di jam jàppoon fees ci seen soñu dam ram boo xeet du taw ba tekki ma may seen dee man ni temps yi da nga rar gis nañ maa di kat bu wañi mi bàyyi man di ak rar mo moo ne bu bëggee xaalis sama rak bu lay bu lawul tamit na ma dal yore bu duggee aljana aljana tabi sa fara ci géej ma mënul man di fa la mo nga laab moo tax ma ne wàcc naa bëri wàcc bien ni ba wàcc naa bëri wàcc bien wàcc naa bëri wàcc bien ni nga wàcc naa bëri wàcc bien Danga fogo nigga li ma jiga la jig moo tax nga verse dara nigga king wala bitch ni la jiital siir te yow kese fes kam gis nga mu ngi dund bàyyi la nga si mbëkk xëyru ma the la fàttali la di fi ku fu perse maa la siwal dig mënu fene di tees kaaw kii la loolu ba dox li polis am si presse loolu ma dox li pëli naan si meew ak ci loxo bi chemise teg si vest fenn bu gémmi ñoom di xeej kere bu I'm siibu tas ci ceeb doomu taal doxal ba kër yi nangu weer ndigalu lépp la ñu fekk masque yu bëri yow di nañ di naka jeeg ma xam ne yaa ma jaay naka jeeg ma xam ne aw saa wesu yëfu dëmm xanaa di jox